gaa yi fi may njëkkee tey mooy ci maam Matar maam Matar maam Matar maam Matar koo xam ne dégradation des mœurs perversion jikko yi yàq franc-maçon yi góor jigéen yi yàq dëkk bi bu dee généwu la toogal ci surux rek nga ne lii garaaw mais bu dee kàddul góor jigéen ñaata yoon nga ñëw sama kër fekk fi góor jigéen te mu sooga léegi nag taxawoon naa fi ne leen am na ñenn ñoo xamante ni diine gi dañ koy mbubboo privé boobu bañ nee soirée privé la lépp privé sama gars yi futteeku dënnu neen ak benn sagaru soutien bu ñàkk solo sili bu neen ñëpp di ko gis man li ngeen defoon Wally Seck man doo leen ma ko def nee naa la tey duma wax sa tur xam naa xam nga sama tur xam naa sa tur mais nga taxaw naa nan la tuddati yaa gën a xam sama tur naan nga fi njarum soow naan fi attaaya sénégal nee naa leen ubbi leen seen xel yi nit ñi ngeen koy jox ñukoy fowé mais rango bu waxé dañ naan rango wax ñuy dem di séq ak iblis wala ay jarbatu firawna fekk leen fa ñu dëkke di moy yalla ko nak diki wax ne ke ciow lu bari amna fi ko nak diki wax ne ke ciow lu bari amna fi rango bàyyi sa xel lay fowé malheureusement sénégal tey parce que kat nit ku dul joom amna dama joom lima ma heure la maa mang koy doog nangou si ñoom. Rangou bàyyi sa xel bi ngay wax sa tur xam naa xam nga sama tur xam naa sa tur mais nga taxaw naa nan la tuddati yaa gën a xam sama tur naan nga fi njarum soow naan fi attaaya li ngeen def waa Seck doole ma ko def. damay wax ne soirée soirée privée. Mm. yoonu lislaam new ca. soirée privée. yoonu lislaam new ca. Mm. ah sama gars yi Mame Matar nee na Mame Matar moo wax nee am na onze yu mu xam ci ñu demoon soirée rangu gars wax jooju amul de wax ju foowa ngi ne woon waaye gars yi ubbi leen te partage vidéo yi Mame Matar nee na am na onze personnes ci ñi demoon ci soirée privée rangu Nena jël na noté na li nga xamanteni moy xawma lan serveur ba mm, wa sonatel merci beaucoup ba tuddaale ci ñi nga xamanteni moy wa sonatel ma ne ko da nga juum juum wax ji nga wax c'est faux wax ju amul pour commencer ñuy défendre suñuy droit ak di défendre suñuy dom ak suñuy jarbat ko xamné dégradation des mœurs perversion di ko yàq franc-maçon yi góor jigéen yi yàq dekk bi budé dee généwo la ci suñu rek nga ne lii mais bul ñu xañ ñun le droit de dire non. wax na ko si tele yi wax ko ci rajo yi ne am naa ci onze personnes am na ci ñaan ñu ñàkk fay dañu ñàkk ful la ñoo xamante ni wàcc seen jabar yeeg seen doom yi dem xuutal xuutali topp rangu ma ni ko ma Matar ba mu ne naa ma ni ko wax ji se foo wax ji amul ki den nag Mame Matar demal nga jox ko direct bi mu seetaan ko li ma koy wax tey jii musu ko dégg moom sax xalaatu ko te sànq laa ko mu mujjee seetaan <laughs> muy wax naan preuve onze personnes yi tey rek guddee <laughs> faalewuñu publicité ba mu doon def te yéen ngeen gis ko ñun ñu gis ko ñëpp ko gis parce que daf ko wane ci foo xam ne pénc la muy réseaux sociaux yi. rangu nag jóg nag ne danaa jël sama liberté jël sañ-sañu ñeneen ñi. bés bu nekk rek muy assaillir les réseaux sociaux de publication les les plus obscènes les unes que les autres. léegi nag taxawoon naa fi ne leen am na ñenn ñoo xamante ni diine gi dañ koy mbubboo diine gi. la ñuy def seeni code pour jàll ñu mel ni maam Matar moo tax may wax encore une fois waxuma association Jamra parce que Jamra équipe la maam Matar waxuloo dëgg bu dee dangaa am ay preuve tey dañuy doxantu vaar génneel preuve yi maam Matar génneel preuve yi say dañuy doxantu vaar génn say dañuy doxantu vaar génn di profité nag di ki wax ne que coow lu bëri am na fii parce que kat nit ku dul juum am na dama juum li ma defoon erreur la maa ngi koy doog a nangu rangu bàyyi sa xel bi ngay foowe malheureusement a tey rangu bàyyi sa xel bi ngay foowe léegi loolu nag la ñuy wax également loolu damay wax ne soirée soirée privée yoonu lislaam new ca soirée privée yoonu lislaam néew. ah bon. seetaan naa la bul fi taxaw ne kenn moo ma ñaan moo tax génnew ma wala boroom kër gi moo ma ñaan moo tax génneew ma kenn ñaanu la man yu mbill gi maa war a ñaan te ñaanu ma tus dama ne ma mataar bu dee am nga preuve benn onze nga wax ma ne la onze yi daa bëri man benn laa la laajte sénégalais yi seetaat soxla nañu seeni diis <laughs> Sénégal dem leen ngeen déglu Ahmed Khalifa Niass suñu papa jooju luy xew ci biir kër ak ci biir néeg ah. bu ci gaa yi dugg néeg ak kër ah. yàllaa ko sutura nit ñi li leen yàlla bàyyee nag wax dëgg yàlla nag bu ñu ko nangu ci ñoom nag muy la dugg ci sa kër privé ah. lañ fay wax ak lañ fay def nag kenn amul droit di ko vérifier nag. yal na yàlla yàggal taxawaayam ñooñu ay kilifa lañu ñooñu ba jàng xewee dañoo jàng waaw kay ñoo ñoo lànk xaw ma duñu ko nangu ñoom tamit dégg naa kenn ci ñoom wax wax bu rafet dëkk bi dafa am yoon. Matar Mama Tar Mama <laughs> bi God.